ngeen mën a nekk ci àdduna bi ñu ngi fii tey ji ci Fatxul naan fii ci Touba muy bis bu magg daje ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru rajab 1442 ci hijir bi daje itam ak fukki fan ci weeru mars 2021 muy bis boo xam ni sëriñ Mamour Mbacke Mourtada ci liggéey bi muy liggéeyal waajuram Cheikh Mouhamadou Mourtada di ko liggéeyal Serigne Touba di ko liggéeyal yonte bi di ko liggéeyal lislaam di ko liggéeyal mbooleem humanité bi yëpp yaatal xam-xam ak dàq lëndëmub réer moo fa yéenewaat amal fii tegu xeer ci naal faculté yu mag barab bi nekk benn site d'extension ci université Cheikh Ahmadou Bamba tey jii ñu daje fii ci barab bi mu def ko nag jotaay bu yemamaay rek cérémonie bu sobre boo xam ne li ko waral xam ngeen ko contexte bi ñu toll ak Covid bi ndax xam ngeen bu wootee ci xam-xam ak liggéey bii mu sóobu àdduna bépp nañ ko defoon ca tàmbali ba nëgën ni danañ ko wusi waaye ginnaaw tolluwaay bi fii la toll ci liggéey bi moom warut a taxaw moo tax mu wootee ko nii ñu fas yéene koo jébbal kàddu yi. fii nag bànqaas la rek ci daarul alimul xabir bi nga xam ne ni ngeen ko xamee yëpp mooy cosaanu lépp daara yëpp ndax foofu sëñ Touba moo ko sañtoon Cheikh Ahmadou Bamba jël ay njabootam yóbbu ko fa sëñ Mourtada itam dekkal ko jël Al Azhar def ko mu nekk foofa mu nekk centre bi nekk foofu ñun tamit ñu jël université bi foofa di di ndey ji li ñu ci wax nag mooy barab bi dafa ak continuité rek la maanaam dafa wéyal liggéey boo xam ne dañ koo dañ ko dañ koo tàmbali muy jàngale wax nañu li nga xam ne moo doon sababu ba sos université bi mooy njàng mu mag mi dafa jafe woon lool ci ci Al ndax ñëpp ñoo xam ne ay bachelier wala amoon nañ seen baccalauréat xam nga ne dañu daan dem ci dëkk yi naar yi te suñ fa demee tamit lañ fay jàng du weesu lu jëm ci diine wala loo xam ne euh, lu jëm ci science wala lu jëm ci scientifique moom daawuñu ko ci boole ñu dox nag ba xalaat loolu nekk ci di ci liggéey bu ubbi nag université état bi tamit jàpp ci ndax université tamit dafa nekkul lu yomb rawatin nag bu fekkente ne da nga cee bëgg mu nekk loo xam ne dafa tege ci yoon ndax diplôme dafa nekk diplôme dafa nekk loo xam ne nekkul aw symbole këyit rek wante dafa nekk loo xam ne tamit fu ñu ko tàllal war na ñoo xam ne lii fii la jóge te lu wér ci nekk loolu moo tax ñu sos euh, université bi état bi nangu ko ñu tudde ko université Cheikh Ahmadou Bamba barab bi nag ñu ngi ko waxee rek barabu sëñ Touba la moom lañ ko jox moom lañ ko jox te sëñ Touba buñ nee barab buñ ko jox la kon barabu yàlla la ndax léppam da koo jox yàlla. boo gisee toujours ñu naan ñuy wax ne suñu liggéey bi laaju ñu ci kenn dara day liggéey boo xam ne boo ko tegee ci ku toll ne loxo sëñ Touba te sëñ Touba léppam yàlla la dañoo xam ne kon yàlla daraam du sooxe mu gën a gàtt rek gën a noppal ñëpp loolu rek lañ ci jublu. waaye xeebaluñ kenn wala ñu wax ci wala ñu waxee ko lenn loo xam ne dañu cee jublu doyadil wala déedéet noonu rek lañ gisee ku ne nag am na gis-gis boo xam ne xëy na dana xóot xóot boo xam ne yow rek yaa ko mën a expliquer wala même boo koy expliquer sax duñ ko déggin mi day jafe waaye loolu daal moo ëmb mbir mi moo tax liñ fi def lépp liñ fi bëgg a def lépp loolu rek moo tax ñu def ko ñu ngi leen di sant nag yéen ñëpp surtout yéen euh, ñi nga xam ne yéen yor euh, média bi presse bi. moom mooy architecte bi nga xam ne moo yore liggéey bi mu jógee ba Italie ñu ko sëriñ bi présenté léegi Jean-Luc euh, muy projet bu am solo comme ni mu ko waxee di espace boo xam ni mat na douze hectares li ñu a commencé nag mooy rectorat bi ko mooy rectorat université waaye xam ngeen ni mooy liggéey bi njëkk a tàmbali ginnaaw bi ñu defee mbir ba pare wax na ni nag li nga xamante ni moom mooy amphi yi muy barab yi ñuy jànge ak euh, fi nga xam ne mooy dëkkuwaay dëkkuwaay yu professeurs yi ak yu étudiants yi yëpp ci la ñuy jubluwaat muy liggéey boo xam ne ni dañ koy def étape par étape waaye lépp benn liggéey bi li ci ëpp solo mu wax ko mooy dana fi am lu war a tolloog 70 appartements yoo xamante ni pièces yoo xam ni fi la ñuy euh, professeurs yi ak chercheurs yi ci la ñuy dëkk ginnaaw bi itam dana fi am lu war a tolloog 300 logements pour étudiants yi étudiant bu nekk da nga ci mën a am sa chambre maanaam 300 chambre daal yoo xamante ni xaj na étudiant yi mën nañ ko bokk mën naa nekk itam benn chambre pour benn étudiant yooyu yëpp ça dépend ci nombre bi nga xam ne ñoo fi war nekk am na fi itam amphi euh, amphi amphithéâtre boo xam ni moom bokk na ci yi ñu war a yi ñu war a yi ñu war a def fii amphithéâtre bu war a jël ci 2300 étudiants 300 sur 300 places am na fi muy boo xam naa boobu mooy amphi bi ci gën a mag yeneen di ci des yëpp ay amphi 300 places am na fi 200 places euh, ci ci projet bi. mu nekk itam projet boo xam ni mu ko waxee dafay garder particularité bi ndax dafa nekk benn université islamique moo tax dana am mosquée ci biir waaye lépp loo xam ni itam université moderne am na ko ci wàllu ay jumtuwaayu recherche ak renseignement lépp programme wàll nañ ko ci université bi bàyyi wàll nañ xel itam climat wu barab bi. ndax tubaa dafay dëkk bu xaw a tàng tuuti moo tax bàyyi nañ xel climat bi ba lépp lu mu laaj ci climatisation ak informatisation ñu informatiser barab bi ba lépp lu ñu soxla ci wàllu jumtuwaayu xarala yi lépp lu war a jaar ci internet lépp danañ ko bàyyi wala xel ci ci liggéey bi bi ñu ko laajee nag ni ko kañ la liggéey bi war a tàmbali def na liggéey bi tàmbali na daanaka ndax bu ngeen gisee nii euh, muy miir de clôture bi moom daanaka yemb na euh, sëriñ bi teg na xeer wi tey liggéey bi dafay daal di door étape par étape nag comme ni mu ko waxee Eh, durée liggéey bi itam nee na bu fekkente ni lépp rek jaar na ni ñu ko programmé dana war a toll ak at wala at ak lu ak lu néew pour mu pour mu yegg loolu daal ci ci tënk mooy li gën a fes ci li nga xamante ni eh, bàyyi na ko fi su fekkee am na lenn luñ ci luñ ci sote ñu fàttali ñu ko.